ginaaw loolu ñi ngi nuyu délégué de quartier bu mboro mboro 3 ndax di yaakaar naan ci koñam lañ nekk di nuyu conseil yi nga xamante leen fekk si jataay bi yépp di nuyu notable yi fi teew suñu yaay yi suñu papa yi waaye nag di dalal gan yi nga xamante dañ fi ñëw tey ànd ak ñun bokk ñun bis bii muy bisu mbégte ñi wax ni dañ fi teew tey teewal fi monsieur le maire abdallah tall nga xamante ni lii bañ ko tàmbalee ba léegi teggul làmmeñam ci di ñu soññ ndaxte bis bi dafa fekkoon mu am ci activité bu mu ci am yàlla dogal tamit keroog biñ koy tàmbali mu amoon le préfet du département ñëwoon fi seet si ko ba teewoo ko ñu teewal ko fa kon ñu ngi leen indil ay nuyoom ci turu monsieur le maire abdoulaye tall kon ñu ngi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci dëkk bi ngeen ñëw ti ànd ak ci délégation bi ñëpp ñi fi nekk nekk ay conseil ma jël jéeju ni ko mu toog suñu wet ndaxte dañoo baaxoo fu ñu dem fekk fa suñu ay naw la conseil dañuy fàtte ne sax ay maire lañ ndax conseil gi moo ëpp doole maire gi moo tax ñu ñëw teg ko suñu wet ndaxte bala moo yàgg incha allah dañ fu ñu war a demaat ci beneen jotaay ndaxte fii rek dañu am benn élection bu fi am ñu war fa teew te faaw am ko fi toog te fii ma toog tamit yaakaar naa ne suñu yaay ndey géey bii mën na fi toog ndaxte lépp lu jëm ci artisanat nekk ci mairie bi moom moo ko taxawee kon jataay bii tamit jataay la boo xamante ni teewaayam bi am na ci solo ginnaaw loolu ñi ngi sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo initié formation bi ndaxte keroog bi ko monsieur le maire yégee am na mbégte moo xamante ni am na tàmbalikaay waaye amul fu mu yem ndaxte dafa bokk ci ay prérogative am la mu fexe ba ndaw ñi am ci lu ñu jàpp te nit boo ko bëggee amal ci lu mu jàpp da nga koy wutal métier ngeen fekk ndaw mu am métier ngeen fexe ba mu capacité wu ci ay domaine am ci diplôme boo xamante ni mën na koo fépp génn fépp ci réew mi man ci am liggéey loolu tamit dañ leen ci delloo njukkal di leen sant bu baax a baax ci li nga xamante ni initiative la bu ngeen jël maire di leen ci accompagner mais mu doon loo xamante ni moom la lépp waroon kon lépp lu ngeen ci def rek ko jël sotti ko ci biir ndabam mi ngi leen sant bu baax di leen ci gërëm di sant seen kilifa yi nga xamante ñoo ñëw teew teew fii tey yëkkati jataay bi ndaxte nit tamit lépp lu ma xew la ay kilifaam ñëw teewaw ci jàppale ko ci loolu day war a ni rek li ngeen nekk dëgg la ci yéen waaye ñoom it dëgg la ci ñoom ba ñu mën cee ànd ak yéen kon tamit monsieur Lo au nom de toute la commune de Mboro ñu ngi lay sant sa teewaay bi ak ñëpp ñi nga bokkal artisanat di ñaan yàlla lépp li ngeen ci naal yàlla na ci yàlla defal ay ndam fépp fu nga xam ne bëgg ngeen faa yóbbu yàlla na ngeen fa mën a àggale ñi ngi sant tamit euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi jàppale ci bis bi ndax gis naa fi ay délégation yoo xamante ne benn bu nekk mënoon naa ñëw jiite jataay bi te da koy mate sëkk ñu gis fi suñu frère Ndiassa Mboup mu ñëw teewal fi suñu xarit Njaga ak euh, mouvement le grand mouvement citoyen ku mel ni euh, mon frère euh, Adama Dieng ñëw teewal fi le moment Ubuntu ak ñëpp ñi nga xamante ni ñëw nañ jàppale li ci leen ci bis bi kon seen taxawaay ñoom tamit ñu ngi koy sant leen ci gërëm le professeur Diédiou indi naa ko fii mu nekk fii représenté bokk délégation mairie bi mais je sais na fi ci invitation ñëw teew ci teewal fi délégation kon moom tamit ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di wax nag euh, ni événement bu mel nii bu amee day baax ñi nga xamante ni ñoo doon def formation bi tamit ñu sant leen ci gërëm leen si muy les partenaires financiers et techniques yi nga xamante ni ñoo tax lii mën a am tey jii bu formation bi amee xëy na 3FPT moo ci def loxoom waaye nag le lycée technique moom moo ko exécuté moom moom moo def formation bi kon ñoom tamit vraiment ñu ngi leen sant ci xam-xam bi nga xamante ni généreusement lañ ko transféré jox ko ay ndaw pour ñu jariñoo ko ñuy wax ne képp ku la jox xam-xam yéene na la tekki kon nag ñu ngi leen di sant ci turu waa Mboro yi nga xamante ni ñoom ñoo doon bénéficier ci formation boobu ñuy waa 3FPT ak waa le sa technique anglais Pétavin bu bu Saint-Louis ñi nga xamante nañ ñoo bénéficier de la formation lii yéen yéen ko moom yaakaar naa nit bu la joxee xam-xam joxuloo ko rek pour mu jox la ko daf la ko jox pour nga jariñoo ko mais soo ko jariñoo aussi mu jariñ sa dëkk jariñ sa réew mais mu jariñ àdduna bi yëpp kon ñu leen wax ne lii nga xamante ne moom ngeen fi jëlee tey jii na ngeen ko jox àq bi nga xamante ni ñi ko jëli woon moom lañ ko jox jox ko aussi àq bi nga xamante ni ñi leen doon formé moom lañ ko jox ndaxte ñu formé la pare nga jël diplôme deñ sa kër jàpp ni amul njariñ moom mooy néewal nga doole li ngeen doon ñoo la doon jàppale ba nga def formation bi kon ñu ngi leen di ñaax ngeen jël li ngeen xamante ni moom ngeen am tey ci xam-xam ngeen jariñoo ko mu jariñ leen seen bopp mais aussi mu jariñ réew mi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci li nga xamante ni boole nañ ko si di wax ne rek le maire mi ngi tàllal loxo képp koo xamante ni yaa ngi dans le milieu artisanal lépp loo am comme formation bu ko yëgee dina la si accompagner lu mu ci man mu def centre bi aussi nga xamante ci lañ ñëw am na une partie formation bu fi nekk am na ay bureau yoo xamante ni c'est exclusivement euh, concept conceptualisé pour la formation xëy na bu ñu demee ba egg si jataay boo nga xamante ni war nañ ko wone ba équipement yëpp ñëw dinañ ko partage maa ngi am nag euh, mbégte delluwaat di leen wax ni monsieur le maire Abdoulaye Tall tey jii fii mooy foroon teewaaye teewaayu monsieur Diédiou teewaayu suñu yaay Ndeye gay. ak teewaayu conseil yi fi nekk yëpp moom moo ko fi teewal kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa ne wax ji jubul ndax monsieur le maire nekku fi bu fi nekkoon mu gën a ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di déclarer ouvert cette cérémonie de remise de diplôme merci beaucoup la aussi yàlla yàlla dool la jàmm euh, dool la sutura yokk say teranga baax bu baax a baax ci barke alxuraan kon dañuy profité rek jëkkante ak temps bi jël kàddu gi jox ko monsieur Faye kee monsieur Faye oui monsieur Faye ah oui monsieur Faye

si turu proviseur Cheikh erbi démb si heure bi fekk mu ngi fi ak ñun waaye fële ci lycée dañu faral di doxale nii yenn saa yi dafay nekk ci ay liggéey yu bari wala mu xat te loolu su ko defee mu tànn ma pour ma taxawal ko ci yenn tax ci turam ak ci turu liste technique gépp ñu ngi nuyu waa di leen di tasagal di leen sant di leen gërëm di sant di gërëm également le promoteur mooy la chambre des métiers su ma jumudee au nom de monsieur Fall bi nga xam ne ni yàgg na trop bi ñuy dëggante pour nekkal lii nga xam ne nii def nañ ko fii si Mboro ah duma jàll ci leneen té waxuma tuuti ci lycée technique bi nga xamné ni nii mo ñëw Le lycée technique est un lycée de formation professionnelle et d'enseignement technique bu yag lool nak ci Saint-Louis yalla def nak bi vers les années 2000 avec un financement de la Banque mondiale ñu am benn département agriculture bu département agriculture bobu am section bu ñuy machinisme agricole mooy mépp mbépp jàng ba nga xam ne ni dafay xeetoo ak defar machine tracteur pelle tractopel conducteur d'engin agricole ñooñu yëpp danañu leen maintenir danañu jàngal aussi ñu dawal leen alors beneen section bi nga xam ne ci département agriculture boobu la bokk mooy euh, production équipement agricole production équipement agricole nag ñooñu ñoo ñëw fii ci Mboro tey plus maintenant beneen filière bu ñuy wax CGA mooy gestion et exploitation agricole ñooñu moom ñooy def mbéy nag ci dëgg-dëgg mbéy parce que ñooñu ci tool yi la ñuy nekk am nañ benn ferme de 7 hectares bu nga xam ne nii foofu la xale yi di defee incubation ak expérimentation léegi nag ma dellu si ci filière bi nga xam ne moo ñëw fii ci Mboro te moom moo demoon Ziguinchor moo demoon Matam incha allahu rabbi suñ fi jógee fas yéene nañu dem Fatick fuñ si dem nag ak lañ fay def bi ñu demee zone sud segam foofu mbéyu ceeb moo fu ëpp doole def nañu fa ay batteuse à def nañu fa batteuse d'arachide def nañu fa batteuse maïs ak mil def fa moulin def fa itam euh, les manuels maanaam usine ak semoir monograin comme li ñu def fii ak déterreuse mooy li ñuy deqee alors bi ñu jógee Ziguinchor nag dem feneen ak feneen yàlla def ñu ñëw Mboro bii si cadre Tivaouane parce que léegi léegi Tivaouane la ñu jóge ñëw fii si su ñu jógee fii fas yéene dem Pambal ci ñetti gox yooyu nag li ñu fa def mooy lii ma bëgg a wax def nañu fa benn décortiqueuse d'arachide maanaam machine buy xolli gerte comme ni ma ko waxee woon léegi gox bu ñu dem dañuy def lu méngoog la fa am loolu tax bi ñu ñëwee Tiwaawoon ñu def fi décortiqueuse d'arachide def fi aussi ay manuel manuel yi nag ñett lañu am na usine am na semoir monograin am na itam déterreuse léegi nag bi ñu ko defee dañu ko inscrire c'est dans un cadre national parce que l'État du Sénégal euh, jamono amon na fi ñiko ko fekkee mën nañu ko baye xel J'angmi mi dafa amone orientation générale ay philosophie ay histoire géographie ay mathématiques lañ faroon di gën jàngale mais légui bi nga xamné ni état dafa am orientation professionnelle ñu ne nañu dolel artisanat bi dooleel artisanat bi nag moy ñu rendre autonome les artisans artisan bu nek mëna mom bopam mën a am métier bu muy wéyalee boppam te moom sa bopp nag métier moo ci gën loolu moo taxoon en partenariat avec le 3FPT ndeysaan le lycée technique André Pétavin def tournée yi mu def yépp ñay artisan yépp nañu am compétence c'est-à-dire mën-mën te mën-mën aajowul jàng français ak anglais ak yooyu parce que xereñteef la rek da nga koy mën loolu tax danañ jàngal ay pël danañ jàngal ay bambara danañ jàngal xeet bu ne te aajuwul sax ngay dem école léegi nag ñu dolli si nag attesté leen c'est-à-dire jox la diplôme pour su ëllëgee soo gisee appel à candidature fu ñuy demandé xaleel bu mën a liggéey si lii nga mën a yóbbu sa kayit ne man lii mën naa ko loolu nag employabilité la c'est-à-dire dafay yombal xale bi pour mën a am liggéey donc ginnaaw biñ ko com joxee compétence bi mën-mën bi ñu jox ko nag diplôme ba nga xam ne dina ko permettre comme ki dem école comme ki am bac ki am licence ki am maîtrise xale boobu tey dana mën a jël diplôme am déposer ko ci entreprise bu ko neex ngir mu am liggéey loolu nag mooy autonomisation c'est-à-dire dañuy dimbali xale yi pour ñu mën a demal seen demal seen bopp léegi nag ginnaaw bi ñu defee formation fii ci Mboro comme niñ ko defee feneen dañu tàmm di wax xale yi nañu constitué wu en groupe WhatsApp au moins suñu constitué en groupe whatsapp ci groupe whatsapp boobu ci la ñuy def formateurs yi nekkoon ak ñoom ñoom monsieur Diom ñoom monsieur Amet ba tax na lënt-lënt bu ñu am ñu mën ko wax ci groupe bi ñooñu continuer di leen jàppale loolu mooy suivi bi parce que ñun li ñu gënal mooy su ñu fi jógee tey jii su ëllëgee artisan yi def comme defar ay machine comme yii ñu leen jàngal su defee ñun loolu mbégte la ñuy doon te dañu ko transmettre à la hiérarchie pour wan ne ñun ñii lii ñu demoon defi ñañ ko defaloon mën nañu ko ba lii ñoom ñoo ko defal seen bopp te ñun pare nañu pour gunge leen si loolu loolu tax ma ne da ngeen di defar groupe WhatsApp bi pour permettre aux formateurs de pouvoir faire le suivi mën leen gunge ci loolu te ku ci aussi am problème mu def débit parce que dañu ne na ngeen autonome bépp marché ba nga xam ne nii dafa aajowoo defar machine ci zone Tivaouane bi amatu leen sax di dem Sismar di commander ay machine parce que fii ay béykat ñoo fi nekk jaratul ngeen di dem Sismar jaratul ngeen di woo lycée bu mel ni lycée technique mais xale yi ñu fiy bàyyi tey war nañu mën a jouer rôle boobu parce que ñun loolu mooy suñu objectif loolu moo tax ñu ne leen il y aura un suivi au-delà de la de la formation

té ci liggéey ak les promoteurs sont à la base ci li fi pour nous aussi bénéficier ñi ci yenen compétences comme lima wax Ziguinchor amna ay granuleuses ay égreneuses... ay suñu ko 3 FPT ak autorisation proviseur pour defal l'information. formation donc ci ci nous yoyu la di leen feddali nag di leen proviseur kontaan na parce que formateur yëpp dalal bi rafet na gunge bi rafet na et vraiment ñu ngi leen di remercier ñun ñëpp wasalaam. ko nga xam ni macha allah kenn ku nekk xam na taxawaayam artisanat bi ñuy wax tey jii mu am ci pëstéef am ci liggéey bu rafet mairie jël lépp jox ko ko ndeysaan mu ànd ci ki naataangoom di ci jëf lépp ci war a jëf. ci taxawaay bu rafet moom la ñu bëgg a jox kàddu gi macha allah bàjjen vous avez la parole. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam góor jigéen mag ak ndaw di leen nuyu ci turu artisan yépp nag ci Mboro ah di nuyu président Lo ak ñi mu àndal di leen jëfal di leen masawu coono di nuyu monsieur le maire Abdoulaye taal doon yóbbante nuyoo bi si monsieur le maire Lamine Diakhaté waaye comme dafa am mission bu muy dem lépp benn la di jaajëfal bu baax monsieur le maire waaye di ñu itam sunu imaam yi toog imaam Bokar Ndiaye maa ngi lay nuyu ci turu ndeyu daara yi di nuyu oustaz Cissé moom it ci turu ndeyu daara yi ndax taxawaay bi dafay nekk lu si sar si ci man kon noonu rek lañ koy mën a nuyoo di leen jaajëfal bu baax di delluwaat ci jaajëfal monsieur le maire ci li nga xam ni moom la rafetlu ci artisan yi tey ba jox ñu placement bu mel nii mu rafet lool. waaye loolu bu ma ci jógee damay jaajëfal bu baax Abdou Fall di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo ñëw defal nu formation bi defal ko suñuy ndaw amuñu seen pay ndax koo xam ne nii dafa toog yor bee céem mais xarañta ba des na nga ñëw dollil ko xarañta ba jox ko diplôme d'état diplôme d'état lu rëy la ku ne xam na ni lu am solo la ci ndaw ndax febu fu bak taxaw bu fa taxawee liggéey fépp fu fa mën a demandé liggéey yoroo diplôme waxi kese du la yóbbu fenn kon ñu gën a góorgóorlu ci seen diplôme yooyu ñu leen jox ngeen exploité ko bu baax a baax a ni leen sama kilifa gi waxe fii léegi métier kenn du ko ba pare lem sa kayit toog ndax effort bi jàll na ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp may santaat nag président lo bu baax ndax yàgg nañu artisan village ba yàgg nañ fa lépp lu nga xam ne mi ngi jàllale di rek ci lañ taxaw dinañ jël seen temps dinañ jël seeni heure dinañ jël seeni soxla topp artisan bi fu ñu leen manti woo ñu dem loolu ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax di ñaan ndam li ngeen bëgg ci xale yi yàlla na ko yàlla defal waaw di santaat nag ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi gërëm sama artisan yi jigéen ñi ña nga nee toog jigéen ñaa ngi nii toog nii góor ñi toogee lañ toogee te jigéen ñi noonu lañ bëggee formation ñun formation ku ko am rek indil nu soxla nañ ko suñu njaboot yi soxla nen ko Mboro soxla na ko kon président loo maa ngi lay yóbbante loolu ñun doyalul ci at ci ci formation ndax Mboro tollul nii xale yi tolluñu nii artisan bi yaatu na fi ñi ngi la koy dénk di la yóbbante di la ñaanal jàmm ak sutura di ñaanal Abdou Fall lii mu doxal yàlla na yàlla gën a yokku jéegoo ak képp ki ko bokkal man moom am naa ngërëm ci yow lool ndax defoo dara baay ma saa sune ne rek ñi ngi jokkoo mi ngi maa ngi balu ñëpp àq Adama Thiam sama doom nag mënu maa dem tooxuma ko ndax li mu def nii lu mu doon la mbir moo gis boog nit day doon li mu bëgg man ci man koo exploité keroog bi nga ma woowee ni ma Adama Thiam accepté na dama la ni loolooy waru garam ndax ku ne xam na ni loolu la ko bàyyam jàngal xamul caaxaan liggéey rek la xam kon bu jëlee recevoir xale yi ñu def formation bi atelier am kon delloo na matt bi ca daala yàlla nay njiglaayam di njiglaay jëf ñu ko formé woo atelier ba di ñaanal ñëpp jàmm maa ngi lu ñëpp nag gudd na waaye yàlla na yàlla dolli jàmm. kon kon mbooloo mi asalaamualeykum wa rahmatullah di leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di beral nuyoo. sama mbokki artisan yi ndax nak wagn bo gis amna jappal diw man ma ngi tudd tala mbay dëkk tiawan bok ci collectif artisan département de tiawan lepp li walu organisation yalla dogal na man maa ko yore kon di sant yalla bu baax a baax a baax ci formation bi sama mbokki artisan yi ma ngi len di nuyu bu baax a baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen a doonoon bénéficiaires yi ak seen patron yi nga xamante ni ñun ñoo bokk collectif artisan yàgg cee liggéey liggéey bu yàgg a yàgg yàgg ba yàlla dogal tey jii képp kuy liggéey danga ñaan yàlla mokkal li ngay def jariñu ca kon artisanat bi ñu bokk ñun dañoo toll ci jariñu ci jariñu nag bala nga koo def dañuy bokk ndey bokk baay di yëkkateendoo di tegandoo ndax lii tëdduñu rekk ñuy nelaw rek ñu jox ko dañ cee yàgg liggéey ànd kook sunu président bi toog Abdou Aziz Lo ànd kook kii nga xamante ni mooy Ablaye Farm dëkk fii ci Mboro ànd kook Thierno Sène Maguette mii ñuy liggéey ci département bi liggéey boo xamante ni ba yàlla dogal tey jii liñ doon togg nag mu ñor ku togg ba mu ñor nag di nga yàgg lekk kon ñu leen di xamal ni di sant tamit amatu Makhtar sëy mi nga xamante ni yàlla dogal na mooy président chambre de métier région de Thiès di nuyu Mamadou Seck moom la président yebal fii mu ñëw taxawu fi Mamadou Seck di nit koo xamante ni tàngam luwul dara ci département bi ak région bi waaw di jàmbaar nag kon dañuy ñëw rekk ci formation bi ah di leen xamal ni formation bi buñ ko def rek jóge ci rek sànni ko ci trois yi ñun artisan yi mu nu àndee bokk ndey bokk baay ci kàttanu sunu borom lépp lu ñu bëgg mën nañ koo am parce que fii ñun ñooy doxalum réew de te nit du xeeb boppam man mii di wax ak yéen man téyeer laa tey jii nag leen naan ku aye wal sa moome yéen soudeur yi yéen a aye kon formation bi yàlla na ngeen ko muur loo yàlla defal leen ci sutura su yaatoo yaatoo yaatoo yaatu

ba kenn ku ci nekk li nga ci war a am nga am ko ci ba tey jii ngeen def formation bu mag bii ku gis machine yi xam ni lii yàgg nañ fi de mais wax dëgg yàlla buñ ko amee ah lu jot yomb de machine yi lu ne mën nañ ko cee am ëllëg parce que

li duuf ci nag wi xajul ci cindi am na loo xamante ni président yi dinañ ko gën a leeral wax leen formation yi at man ko commencé fi nu yem fi nu jëm ci kàttanu suñu borom di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla sama mbokkum communicateur bi ndax man kasketu ñetti kasket laa fi teewe dama bokk ci artisan yi dib tëyër sama nattangoo bi ñu bokk di yëngu ci communication man communicateur traditionnel la ca Tiwaawan di ànd ak la maire Demba Diop si maire bu baax bu am njariñ nag kon li may wax daal artisan yi nag ñu gën a booloo jërë ngeen jëf di sant di vous avez la parole. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi waa Mboro gépp xam naa wax ji dafa mënta ñàkk sax waaye dëgg-dëgg bu fekkee président dafa teew vice président daanaka moom jëru muy wax comme vice président moom ci ginnaaw président lay topp daanaka ñun suñu suñu kàddu du du dëjar muy sori trop trop xam naa bu président Abdou Aziz Lo ñëwee li jëm ci collectif bi lépp dina ko gën a leeral waaye man li ma ci wax ci lu gën a gàtt rek mooy euh, artisan métal yi nga xamante ni yàlla defal tey ñoom la ñu defal formation parce que man mii wax ak yéen maay président AMT artisan métal commune de Tivaouane képp koo xamante ni yaa yor atelier ci Tivaouane ak li ko wër man maay sa président te li tax ñu def loolu mooy ku ne xam ne artisan dafa yaatu sa accès sa artisan yërul ci soudeur kese yëmul ci tailleur yëmul ci bijoutier yëmul ci menuisier dafa yaatu waaye ñu gis ni corps de métier bu ñu nekk bu fekkee ba am euh, ba am association boppam dajale association yi day yomb waaye dajale association yëpp ñu nekk benn association corps de métier yëpp ñu nekk benn association dafa nekk loo xam dafa yombul. parce que fële ci Tivaouane li ñu organisé ñun mooy menuisier yi dañoo am association tailleur yi am ko soudeur yi am ko bijoutier yi am ko ñu ko nag créer collectif collectif boobu nag. tey moo dox lii ba nga xamante ni moo jéegu yi ngeen gisee seen bopp mu nekk loo xamante ni bu Abdou Aziz Lo ñëwee dina ko gën a leeral fi ñu ci jaar ci ay jéego ba tey mu dikk ci Mboro dem Tivaouane ñëw fii ci Pambal mu nekk liggéey boo xamante ni liggéey bu yàgg la bu méttee mett boo xamante ni tey jii nga xamante ni ñoo ko jariñoo bañ koy liggéey wóor na ma ne yëguñu ko xamuñu ni wax ñu ngi koy dox waaye tey ñu demee ni ko taalam ba waxee bi toog gi demee ba ñor ñëpp gis nañu di leen leen doon dox kon mu nekk loo nga xamante ne jot na sëkk tey artisan yi ànd bokk ndey bokk baay réew mi di Sénégal artisan mën na ko war na ko mën a jiite waaye artisan yi li seen problème ñëpp dañoo tasaaroo kenn ku nekk bokk sa atelier dafay la am doy na la sëkk mu ngeen xoolee ci transporteurs yi ngeen xool ci jàngalekat yi tey ji ba nag mooro gi boo fi bëggee génn mooro foog nga dem ci gaarax ba jël oto boo feneen foo taxaw jël oto kooku sori bind sa numéro te boo waa da ngay mais pour artisan yi ñoom ñu tasaaroo kenn ku nekk bokk sa buq defe ne li ngay nekk ndekk moo lay jaay non non mënta nekk tey ji dafa jot mbug dafa jot sëkk artisan yëpp ànd bokk ndey bokk baay lu ñu bëgg ci réew mi ñu mën koo am lépp loo xam dañ ko yotuñu mën koo jot parce que artisan yi ñoo ëpp ci Sénégal lépp loo séen mu taxaw fi artisan ko taxawal lépp loo séen mu baax bañ du ko yëpp artisan moo ko def pourquoi artisan yi mënuñu ànd bokk ndey ak baay artisan yi nañu wóolante nañu wóolante nañ jiital te ñuy jiital ñu topp ci ñoom topp ba rafet ànd ak ñoom ànd ba rafet a rafet loolu moom mooy li nga xamante moom mu gën a ñor kon dañuy jox koso ana koso koso moom jox kàddu gi mu wax ci turu élèves macha allah tàccu leen koso waay waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di kontaan bu baax ci nin fi teewee day wane ni dina jël décision pour jàppale seeni rak ak seeni dom a di jiital si nuyoo bi monsieur le maire di kontaan si moom ndax lii yombul te bàyyi ay yiteem ngir ay doomi dëkkam kon lii rek moo taxoon ñu doon def lépp ngir fal la la wax nga gën a yokk rek te gën noo jàppale waaw bu loolu weesoo ñu nuyu Abdou Fall di kontaan si mom ndax dafa wàcce boppam ba tolloog ñun lépp loo xamante ne rek bëgg nañ ko ñoom mi ngi si doon jàppale bu baax te bu dikkee day oyof nekk ak ñun si biir di waxtaan ak ñun te manqué wuñ dara nag yesaay day ñëw sax ñu draayee ko ni ko Abdou ndox du si teg baat day dem si oyofam dem jël ko waxul kenn kaay jël de mooy dem jënd ko jàpp indi jox na ñu naan kon ñu koy ñuy kontaan si moom di ko remercier bu baax di ñaan yàlla. yal na yàlla yàggal taxawaayam lii muy def nii yal na ko ci yàlla fay gën gi fay ndax buñ amoon ñeneen ñu mel ni ñoom mel ni moom mi kon yaakaar naa Mbooro fépp fu mu bëgg a àgg dina fa àgg ndax dëkk moom lii rek moo koy doxal ay jeunes te ay jeunes rek ñoo fi daje ngir bëgg dara di kontaan ci gars ndax liggéey bi ni fa demee six jours lan nu waxoon ñun ñu liggéey ko ci quatre jours et demi kon loolu bëgg-bëgg ak jàppoo àndoo doon benn moom dong moo ne ko may kenn musu fa xuloo kenn mu fa sànni kenn loxo amul benn problème boo xamante ne musa fa am te ñun keroog lan fa doog a daje kon loolu bëgg-bëgg ak xam li nu fa indi moo tax bu loolu weesoo ñu nuyu suñ patron Thiam di kontaan si moom bu baax ndax palaasam am lan ko doon defee mais bi nekkee si place bi yow mënoo dikk ba xam ni kii mooy borom place loolu da nga kaa ndax bagage amul laal mu la lii dañuy manqué dara sax mu dugg si biir génne ko muy poste yi doon suudee même ay baguette boppam da ko doon génne dina ko jox kon loolu baax gu mu baax ak dinu di waxtaan ak ñun naanu dee leen def lii ndax lii seen njëriñ la ndax ñun ay mag leen yéen yéen ay xale yi ndax xale mooy doxal dëkk te ñun ñu fa daje ay waaw di kontaan si moom di ñaan yàlla yàlla na yàlla yàggal taxawaayam di kontaan si ñi nga xamante ne ñoom la ñu boole ñu nuy formé ku mel ni Pascal ak Ahmed di kontaan si ñoom ñoom seen oyof ak seen laabir nga xamante ne jàppale nañu te amul benn koo xamante ni wax wax na kàddoom mu féete kaw ndànk lay waxtaan ak ñun ba wax ñun ñu mën koo dégg te musu am xeelu kenn wala mu bedd kenn ci leen loo ko man di laaj donte li nga koy laaj lum man di doon ak lu muy day ñëw wax la ko ak sérieux nga xam ne lim li nga xam ne mi ngi la koy expliquer yow nga mën kaa xam kon loolu oyofam moo tax ndax bu dikkoon mën na mën na déw mu wan xam-xamam mu expliquer la benn yoon xamoo mu nangu ko jox keneen te loolu lépp du ko def lu la wax boo xamul boo ko wooyee donte dix fois day ñëw expliquer wàll ko ba nga comprendre kon ñu kontaan kontaan nan bu baax a baax di kontaan ci ñi fi daje ñëpp ndax bu mënoon a lim kenn par kenn dañ koy def ñi nga xam ne daje nañ fi ñëpp kontaan nan si ñoom di leen jaajëfal di wax képp koo xamante ni yëkkati nga sa jéego ñëw fii yàlla na ko yàlla defal ay yiw yàlla la ko yàlla defal ay yiw di kontaan bu baax si suñu waajur wu jigéen wi ak sama soxna see ak samay mag ñi nga xamante ne ñoom ñi ngi fi deew di kontaan si gaay wax dëgg yàlla man su wax si sax da du bëgg a bàyyi bëgg mais temps bi mayewul kon dañuy ni ñun ñoo ko moom lii ñun waral kon nan àndandoowaat gën a suurewu doon benn gën a topp suñ patron muy càmm ah, di kontaan bu baax baax di yemale foofu kàddu yi. kon ñu jox monsieur Adama gi bala ñu ko jox ngeen tàccul ma Adama Thiam ci Pastef bi ci jom ji ci fulla ji ak ci fayda ji waaye ci yaatal gi macha ku baax ku gore ku bëgg lu baax taalibe borom Tuubaa Seexuna Ahmadu Xadim waaye see ku liggéey si kër baay macha doo samba àllar doo samba sula waaye doo samba bala ma lañ monsieur Adama vous avez la parole. merci merci merci monsieur Seck jërëjëf kàddu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi leen di ziar di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay di bége ñëpp waa di gërëm itam waa collectif des artisans yi nga xam ne ñoom it dañoo bàyyi seen i yitte yëf yi xat lool ñu bàyyi seen i yitte ñëw ndax ndawi mbooro mënoon naa ñàkk waaye nag dañ ne duñ ko def parce que c'est une première lii à Mboro ñu dajale artisans yi muy menuisier métallique yi am seen formation bopp. ah comme que c'est première nag duñ def lu dul sant leen di leen ci gërëm di ñaan yàlla yàlla yàggal seen taxawaay waaw te nag lu mel nii itam ngeen gën di ko dolli parce que lu mu gën a yokk rek ñu gën a am possibilité te suñuy ndaw ba li ñuy wax nii di ko jooytu muy daw di dugg ci gaal ak di dem Nicaragua ak yooyu yëpp mën nañ koo faj ci kaw yi nii gën a bari loolu nag bëggoon naa waa meeri bii nga xam ne sama maman Ndeye Gueye mi ngi nii toog monsieur Diédiou mi ngi fi toog ñoo fi nekkal waa mairie loolu yóbbante boobu ñoom ñoo ko moom waaw ñu gën a bàyyi xel artisan yi bu baax a baax di gërëm nag sama xale yi xale yi moom ma seen fay dama leen di wax rek chapeau à waaw mbir mi yéen la du man man duma ci dara bu ma merci merci man duma ci dara bu ngeen dee gërëm ab du Fall ngeen war a gërëm Abdou Fall mi mo fi nek di don tailleur nak tailleur la pour mu leer ci seen bop tailleur mo top li ba manam menuisier métallique yi tay meuna daj am li ci suñu kilifa yi ak 3FPT mu jàppandi itam ci wa lycée technique André Pétavin bu Saint-Louis ñu waaw ak wa chambre de métier ñu yabal fi ay prof yu mucc ayeb yu nga xamanteni ni wax deug yalla ah bu ñuy wax prof ñooñu mat nañu prof parce que ñëw nañ fi jàngal ñu ci juróom benn fan juróom benn fan yi xat na lool mais jaayante nañ ci ba machine yi ñu fi bëggoon a defar bu ci ne réaliser nañ ko defar nañ machine yu jiw gerte machine yu aussi ak euh, buy xolli yooyu yëpp defar nañ ko fi délai bi moo gàttoon nag moo tax bon mënuñoo am yenn yi waaye nag di delluwaat di waxaat suñu kilifa yi ci dëkk bi ne lu mel nii nay sax ba pare itam buñ mënee am espace ba nga xamante ni nii artisans yi menuisiers métalliques yi mécaniciens yi ñëpp dinañ mën a épanouir am espace bu yaatu parce que fi ñu ko doon liggéey itam xat na torop tax na metti woon na metti mais loolu yëpp xale yi xooluñu ci dara nañ ne nañ am xam-xam bi rek jaral na leen ko kon macha allah ñi ngi sant ñëpp di gërëm suñu yaay yi suñu sœur yi fi ñëw ñoom ñëpp ku ci ne am nga loo waroon na mën a defi da ngaa bàyyi loolu ñëw taxawuñu fii parce que ñun ak ñoom ñooy yendu ñun nag ñoom ñooy yendu ñii ay salon la ñu yore ñii di nangam nangam kon benn la lépp ci artisan yi la kon ñoom itam ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay yéen itam bu baax a baax waaw di gërëm itam parents yi nga xamante ni nii xale bu ci ne mën naa ne sa parent ñëw na fekke si lu ni mel kon sant la ñuy ñaan yàlla nag mu gën a yokk ñu leen di gërëm yéen ñii itam ngeen gën ñëw ubbil bunt yi yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen a yore collectif bi ngeen di bàyyi xel Mboro bu baax parce que Mboro zone la ba nga xamante zone industrielle la benn zone agriculture la ñaar wàllum pêche waxaale ko jigéen ñi ñi ngi ci wet ku ne dañ ne góor baax na waaye jigéen baax na te ñoom it ñi ngi bay seen waar ba mu mat comme ni ko sama maman Ndeye Gueye waxee bu ñu mënee yokkal yëf yi ngeen gën ñu cee jàppale dinañ ci gën a sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax a baax di gërëm itam abdou karim beng mi nga xamante ni bi professeur yi ñëwee moom daf cee def lépp lim mën jël hôtelam ne ñu fii la ñuy dëkk saal sax daf ñu naroon jox saalam abal ñu ko mais comme que nag maire mi ngi fi moom itam mi ñu jox local bi ñu ñëw fi def fi suñu cérémonie di sant bu baax di ñaanal di leen wax kon ñu ñaanaat yàlla beneen ñëwaat rek ñu mën ci sama gars yi jërë ngeen jëf Vous avez la parole. À tous les Paraguayens. Merci beaucoup. jërëjëf sama turandoo ngi fay nuyoo bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, kàddu gi moom xam du gudd kàddu yóbbante la ak kàddu nuyoo ak ñaax monsieur le maire ak fi teewal nuyu président Abdou Aziz Lo Al Amin suñu kilifa parce que moom suñu sëriñ la jàppewuñu ko président donc bu ñuy tudd ci titre titre la rek waaye kilifteef moom mooy mageel kon ñu ngi koy jox wàccewaayam bu baax ak taxawaayam di nuyu également Talla Mbaye di nuyu ma doyen Maguette Guissé di ko sant di ko gërëm bu baax di nuyu nag président Abdoulaye Fall di ko jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di nuyu Serigne Thierno le vice président du collectif aussi ci kàddu yi nga xam ne soññe na ko euh, jëmale ko ci wàllu métier bi dégg ngeen li mu ci wax kon sëñ Thierno ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow it ci taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci collectif bi waaye am ko ci li nga xam ne moom mooy ci wàllu métier bi. di nuyu Ablaye Fall di ko jaajëfal ci taxawaayam bii rek maa ngi ciy déggante ak président Lo waaye moom it ci ab soññeem ci taxawaayam mu ne ko président yow cere cëralee ngay coordonné mbir ba mu agsi fii dafay jaadu même bu ñu yabul lool day jaadu ci sunu jëmm ñu teew ndax président Abdoulou ak ñi mu àndal waaye teew ci sa jëmm yow ci sa taxawaay bi nga xam ne am nga ko au niveau du Mboro buñ ci amoon juróom ñu mel ni Ablaye Fall ci artisanat Mboro dina jëm kanam loolu moom dinaa ko témoigner di ko jaajëfal tailleur la waaye jàmbaar la ci ci ci ci artisanat jàmbaar la ci métier yi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu nag. di indi nuyoo président chambre de métier monsieur Amadou Makhtar Seye bi nga xam ne barki démb bi ñuy toog di waxtaan ak moom boobu ñu ngi dem Mbour mu ne ma bisu ñoom président Abdou Aziz Lo cérémonie boobu na nga ci teew wax ci sama tour teewal ma ndax yow foo teew en tant que membre du bureau en tant que chargé de la communication ci chambre de métier soo waxee rek yóbbaale nga sunu kàddu ñu ñëw nag ci kuréel googu fekk fi sunu yaay Ndeye Guèye nga xam communication chambre de métier mom mi fu mu toog su waxé ci turu chambre de métier ñu xam ci cellule de communication ñi nga xam ñoy waxal chambre de métier mom ci la bokk ñu fekk ko fi jox ko wàccu wayam bu baaxa baaxa baaxa baax limay ñew nak ci cérémonie bi président du gudd tëjee ko moy di sante bu baax ñi nga xam ñom ñoo doon def formation bi di leen jaajëfal ci xam-xam bi ak travail bi nga xam ne am nañu ko waaye également ñi nga xam ne ñoom lañ doon formé ñu xam ne yokk xam-xam du wees ndax lii ñu leen jàngal tey am na am solo goo xam ne xëy na ca kanam ngeen koy xam mais li ma ciy dolli rek président muy ñii ñu doon formé nañ leen gën a encadré ci wàllu formalisation suñ ci jógee c'est très important la formalisation c'est très important ci réew mi fi ñu toll léegi loolu la laaj nit ki buy wane ni man artisan la wala nangam laa dafa war a am lu koy mandarga muy la carte professionnelle na ko fexe ba am ko ne ne yaa ak commerce parce que loolu moom mooy tax nga bokk ci li nga xam ne moom la état du Sénégal di séddale sans loolu boo ko amul dàq la defar ay machine ci àdduna mais pour nga bokk ci dana jafe lool dana jafe te loolu aussi mandarga la te départ la ci formalisation ngeen mën ko am su ngeen jógee néew na nga gis ko am carte professionnelle mais répertoire de métier c'est important ñu bari xëy na miinuñu ko waaye ñaari carte la benn bi muy la carte chambre de métier muy carte bi nga xam ne day wane ne man ci artisan de métier nga am ko mais beneen bi ci des muy carte répertoire mooy loolu mooy carte répertoire mooy sama entreprise man bu ma dee Ablaye Fall Mboro ba pare am sama carte war naa am Ablaye Fall Mboro et frère nga xam ne loolu moom mooy sama mandarga ak entreprise su ëllëgee dinaa mën a nekk ci répertoire au niveau national. bu ko defee dinañ xam ne Ablaye Fall kat entreprise am existe na loolu nag jafewul nañu jege président Ablaye Fall jege président Abdou Aziz Lo ne na yaag de commerce jafewul carte professionnelle jafewul koy wax carte professionnelle nag dafay jàpp ni ay élection chambre des métiers moo tax ñu koy ut weesu nañu foofu dem leen ngay uti ko parce que àdduna bi moo toll foofu te loolu aussi tamit dafay dimbali lii génn ci réew mi ñu koy seddale ngeen mën cee jël seen wàll kon président merci beaucoup ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni rek kontaan nañu ci bu ñu teewee ci jataay yu mel nii lu mu xat xat xat xat président danañ ci teew barki démb ñi ngi woon mbuur démb bi ma président Fall di woo ña nga woon xom xombal tey ñi ngi fii ñi ngi mbooro suba yàlla mën na def ñu nekk leneen mission la bu ñu yàlla teg kon loolu it nañ ko nangu carte bi moo nekk nii carte professionnelle bi kon moo nekk nii photocopie carte d'identité ñaari foto certificat de travail mille francs ku ko mës a am nga dem renouveler à 2500 loolu yomb na bu ko defee nga am sa carte professionnelle lépp lu ñuy séddale ci réew mi nga mën a taxaw laaj sa sa wàll. ça n'a rien à nag ak élection jot ngay dem di woteel ma sàmba wala ma Demba mais lii soo ko amul munoo génn ci réew mi naan da ngay ñaan visa da ngay artisan kenn du la ko may. lii boo ko amul duñ la ko may kon c'est important merci beaucoup jërë ngeen jëf. kon ñu jox kàddu gi du Fall li ma doon témoin ci moom bàjjan ndey gunge na ma ci lu bëree bëri muy nit koo nga xam ni ku am yëg-yëg la ci doomu aadama mais ku am gis-gis mais ku am taxawaay ci Mboro ak ci biti Mboro lu tax ma wax ko pas question ko bëri wax mais maa moom danoo bokk nekk Bamako macha allah. muy ku yàlla baaxal waaye ku am yëg-yëg waaye ku am taxawaay dama koy wax ni ko yow da nga sonn lu tax nga sonn mooy fépp foo gis njariñ da nga ko daw jëli andil ko waa Mboro ndawi Mboro yi man koo jariñoo ca bare la loo xam ne moom mooy ñukk ci poosam teg ci taabal ji sonn ci lool bu dem dee jot mooy jël oto bu lekk dee jot lu bari moom mooy def kon Abdou mii ñun ndawi Mboro ak yéen ndawi Mboro laay wax mënuñu ko fay waaye yéen it mënu leen koo fay kon tey dama bëgg ngeen tàccul ma ko saal bi na riir Abdou Fall vraiment mérito nga ko kon yàlla yàlla doole jàmm nit ko baax nga ko gore nga. ku am yëg-yëg nga mais ko am taxawaay nga mais loolu da nga koo donn sa baay aji sa yaay aja aram géy moo ko liggéey sa baay kër Alaaji Daam Faal kon yow noonu nga mën a mel foo jaar danga nga baax foo jaar danga nga gore yow yaay sama géer yaay sama lépp yaay sama xarit yaay sama soppe yaay sama wëllëre yaay sama am di jàmm mon ami mon frère Abdou Fall vous avez la parole. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Euh, di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire adjoint Lamine Diakhaté bi nga xam ni moo ñëw présider séance bi di yóbbant ci moom nuyoo monsieur le maire Abdallah Tall mi nga xam ni depuis le début jaar naa ci suñu maman Ndeye Gueye lépp lu ci war rek ak lu ci xew rek yëg na ko te dugal na ci loxoom ndax saal bi ñu taxaw tey ci jàppaleem lañu fi fi manifestation bi kon ñu koy nuyu bu baax également suñu gan nga ñoo suñu gan duñu gan ndax nañu Mboro fi ci différentes manifestations avril 2021 nous fi formation bu ci couture cadre MTS mouvement des tailleurs du Sénégal ma àndoon ko ak ñom ñi sama président nek ci ginnaw di président Lo tay ñu ñëwaat tew ci li nga xamni moy formation bi nga xamni dafa jëm ci walu menuiserie métallique ci matériel agricole. di gërëm le président Modou Seck bi nga xamni mo joggé Thiès jité regroupement des tailleurs de la région de Thiès waaye également nek porte-parole chambre des métiers momit min Mboro lool luñ mus a xewle rek teew waye dafa and ak suñu télé di télé regroupement des tailleurs de la région de Thiès mo ñëw ngir mu ñëw couvrir événement bi. di gërëm président Lo bi nga xamni mom mo jité collectif bi nga xamni mo organisé lii muy CADT collectif des artisans du département de Tivaouane waye mu nekk éli bu chambre de métier waye mu nekk aussi. Euh, ki nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci artisanat ci mairie bu Tivaouane monsieur le maire Diop si woolu ko ci muy ànd ak moom liggéey boobu. ñun nag ñu bokk collectif bi bokk MTS bokk yu bari yàgg ci liggéey mu nekk nit ku am générosité koo xam ni lépp lu ñu nar a jox Tivaouane day laaj ndax mbooro jot nañ seen wàll. bu nee bu buñ ko nee mbooro duñ jot mu gedd ko gedd na ko benn yoon du ñaar yoon te li may wax ñi ci sama ginnaaw mën nañ ko seete lépp lu muy jëli rek day laaj ndax waa Mboro dañuy am. ndax moom département bi la jiit suñ ko nee ñooñu duñu am mu ni kon moom day gedd bu Tiwaawan benn rek laa ciy jël exemple muy masque yi ñu doon ñëw en 2019 bi mu laajee mu xaw a am nu mu demee def nii kon mi sama wàll may naa ko waa waa département bi kon formation bi bu amee tëbul tëb rek wat ndax ñu ngi dégg 3FPT xam naa am nañu ko miinul trois fpt agence la bu fi at état bi teg muy yombalal ay financement ci borom métier yi su fekkente ne ñun ñu ngi fii mbooroo bokk ci collectif bi dañuy bind demande bëgg nañu ko ñu former ci ci ñaw wala ci suudar wala ci leneen bu ñu buñ ko déposé ci niveau de chambre de métier wala niveau 3FPT 3FPT daf koy teg ci taabal bi lycée bu mel ni lycée André Pétavin bu Saint-Louis di jàngale ay métier yamul rek ci suudar lépp luy métier dañ koy jàngale ñoom ñu ni kat am nañu xarañte fi am nañu ñu ko mën a defar machine yooyu am seen agrément ñëw taxaw 3FPT ni ñaata lay jar ñu ne ko nangami million mu génne millions yi joxe kon li ngeen def nii bu ñu ko doon évaluer c'est beaucoup de millions yoo xam ni moo indi fina euh, formation bi ba ngeen mën ci bénéficier wu tey. collectif bi nag li ci am solo xam naa président dina ci ñëw donte le président Sène wax na ko dañ leen di leeral ne bu ngeen demee Tivaouane gi mu sosoo soudeurs yi dañu am seen association électricien yi am ko tailleurs yi am ko menuisiers yi am ko ñiy defar frigo am ko. ñi nga xam ni ñooy defar téléphone am ko ñooñu ñëpp nag ñoo dajaloo créer collectif bi képp koo xam ne nag dëkk nga bu nekk ci département wu ci nga bokk loolu man moo ma ci dugal président loo def ma coordonnateur programme bi lépp lu ñuy dox nag ñoo koy ànd gis nga aussi bi lu ñu war a jariñoo amee ni mu amee Tivaouane noonu la amee Pambal waaye noonu la amee mbooro yàggul dara fan yi ci ginnaaw

jiite Pastef te suñu papa desal ko fi jiite magi Pastef ñu ngi koy dalal bu baax madame la députée honorable député suñu papa Saraka Camara moo ko fi teewal euh, taxawu Sénégal ki nga xam ne monsieur Ali Diagne moo ko fi teewal le grand mouvement citoyen ki nga xam ni mooy Ndiasse Mbuub moo fi teewal ki nga xam ne mooy Njaga parti awale bu docteur Abdourahmane Diouf Euh, suñu frère Bara Guissé jiite ko soxna Joor moo ko fi teewal kon yëf yi xëyul xëy rek wadd dafa am ñu ci jàpp wuy si ñëw jëmmal jotaay bi ba mu mën a nekk nii ñi ci sama ginnaaw nag présenté nañ leen mais xam naa président Lo dina ci gën a ñëw ndax ñun ak ñoom ñoo bokk collectif bi comme dañuy njëkkante ak temps bi du ñu ko mën a guddal lool lool lool dañ leen di leeral rek ni formation bi demee ba yëg si fii ak ñi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo ba mu mën a nekk presse bi également ñu ngi leen di nuyu presse locale bi ak presse régionale bi di gërëm journaliste Sen TV parce que ñu ngi ci jotaay bi incha allah dinañ ko diffuser. waa Vital TV lu ñu mus a ànd ba ci formation defar saabu bi ñun ak ñoom ñoo àndoon Tivaouane ñu couvrir ko ak suñu télé regroupement des tailleurs de la région de Thiès RTT TV moom it ñëw nañ couvrir ko kon kàddu yi du gudd li fi jara wax yépp wax nañ ko suñu doyen Sidi Bathily moom moo fi teewal madame Biliba di soxna ci le candidat premier ministre monsieur Amadou Ba kon Sidi Bathily ñu ngi lay jaajëfal di gërëm ñi fi teew ñépp euh, madame la maire suñu conseillère bi nga xam ne moo teewal artisan yi ci biir municipalité bu Mbor soxna Fanta Maymuna si si soxo mi ngi ci jotaay bi ak soxna Fatsar ak ñi mu àndal yépp suñu maman yi ak moment yi élèves yi nga xam ne ñoo fi woon di si di suivre formation bi yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. ñu ngi may wax nag ni carte professionnelle bi naa leen ko leeral je pense que Serigne Modou Seck président leeral na ko cinq 5000 francs la photocopie carte d'identité ak carte euh, wala boog certificat bi la sa patron jox waaye désormais certificat bi ngeen am fii bu ngeen ko boolee photocopie am mën ngeen ci am carte professionnelle. ni ngeen amee nag équipe ba ki nga xam ne mooy Kosofal wax ci seen Non lañu mëna mën ak mom moom ko chambre de métier ko ba fofa mu xam fiñ koy déposé su ko défé bu ngeen képp ku ci dem déposé ko ben yoon. diko suivre jël numéro jox dem mu jox la formation bi nak liñu ci bëgg bu fi ni association soudeur ñu un appel fort à tous les artisans di Mboro dañu menuisiers yi booloo am seen association maçon yi am ko soudeur yi am ko ni ko tailleur yi amee ngeen di organiser yu mel nii su boobaa du ngeen ci soxla Abdoulaye Fall du ngeen ci soxla keneen da ngeen di mën a demal seen bopp. parce que yoon wi leer na am na ay kilifa yu taxaw suñu kanam pare pour tette leen wan leen ni ngeen koy defee ak fi ngeen koy defee li ñu bëgg nag su ngeen jógee mooy ku bokkoon ci formation ak ku ci bokkul képp kuy artisan rawatina soudeur nekk biir Mboro na jël contact ak Adama Thiam.

première région minière du Sénégal li fi nek ci walu mine amul ben région bu mu yamal. li fi nek également ci département bi ci walu mine amul ben région bu mu yamal. muy ICS muy MDL muy euh, Poben Toben Power bi nek suñu ginnaaw ak carrière yi bo len doon lim du jeex dafa des rek ngeen wut ay këyit am ay qualification demal sen bop dugg ngeen mën luqati emploi bi parce que bu ngeen ko deful ñeneen ñoy jóge ci yeneen région di jël marché yi di ko gañe di leen jëlaat yéen comme ay journal yee ngeen di ko liggéey ñuy yóbbu dividende yi seen dëkk loolu nag dafa doy ñu dakkal ko te li koy mën a dakkal rek mooy formation yu mel nii ngeen am ay këyit yi ngeen war a am tënku ci benn kuréel muy GIE muy association tënku ak ñi nga xam ne ñoo koy liggéey au niveau régional partout parce que lu mel nii président xam na ni li may wax ni fu nekk lañ koy def muy Ngunjaan muy Jandeer fii ba Ziguinchor fii ba Diaobé ànd nañ fa ñun ñii ngir di fa taxawal formation yu mel nii loolu nag su amee sama dëkk man ma bokk ci ñi dox loolu ak ñi koy jiite sama dëkk bëgg a des ginnaaw loolu man duma ko mën a seetaan bu ngeen gisee may jaayante yu baree baree bari dama xam yëf yi ni muy demee ci yeneen dëkk yi. dama xam njariñ bi mu leen di jural barki démb projet PEJA bi président Mor Seck ngi fi ñaata centaine de machine lañ séddale ci région de Thiès lan moo tax waa Mboro bokkuñu ci te dañ leen koy may gratuit état bi moo ko teg bi ñuy séddale fanweeri junni yi mi ngi may mi ngi may mi ngi koy gis man maa jëli fichier ñëw bindi nit ñi séddale ko ñu baree baree baree bari jot nañ projet li nga xam ne mooy deer bi également président président loo mi ngi fi bi muy am la ñu ci daj laa ci daj ñu bëree bëri mbooro fii DER bi financé na leen ci yitte yooyu te jóge sa place dama ñëw laaj la sa photocopie carte d'identité ànd ak ñoom dem ndakaar def yéeg a ko wàcc ba nga xëy ñu woo jox la lañu lay jox ci crédit mutuel ak yeneen ak yeneen ak yeneen formation bu war a commencé suba ñiy def salon yi lañ ko may collectif bi moo ko dox wax ko ba mu sotti Euh, euh, madame la maire a ngi nii toog leeral nañ ko lépp mais bi ñu ñëwee waa maire bi soxla ko ndax diggaate woon nañ ko ba pare dañ ko ni vingt cinq personnes yëpp bàyyi nañ ko ak yéen man li ma ci waroon am bàyyi naa la ak yéen doxal leen parce que yéen mbooro ngeen liggéeyal ñun mbooro la ñuy liggéeyal kon ni mu amee noonu la amee ba ci ñiy defal téléphone dañuy am ay formation mais formation pour mu mën a am da ngeen di lëkkaloo doon benn ñëw adhéré ci kuréel gi am seen kuréel ba pare kuréel gu nekk ci région bi ngeen dugal ci seen loxo lu xew ñu woo leen ñu ànd teewe ko xam naa pareel bi guddi na te ci tisbaar mi ngi waaj a jot lépp kenn mënu ko wax ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu ci teew waaye nag sama jigéen ñi nga xam ne ñoo yoroon restauration bi ku ne xam na ni macha allah cuuneen yi ak gayeen yi añ yu neex lañ doon añ pendant pendant pendant pendant formation bi waaw di naan ataaye loolu nag bu amee sama jigéen ñële madame Fall ñoom ñoo ko taxawee vraiment ba yooyu yëpp sotti

lépp loo xam ne moom moo ko moom daf ko mettre à notre disposition boole ci daf may wax ne ma demal toog sa place man lu fi war a gérer dina ko gérer ba ci pointage yi ñu doon liggéey moom moo leen doon pointé kon Adama Seck mention très spéciale li ngay yéene ci soudeur yaa ko xam yàlla na ci yàlla defal lu kawe sa njort te képp ko nag kuy jël sa doom muy jàngi soudeur référence la Adama Seck bokk na ci ñi tax ñu ñi naw métier suudar ba ku ne bëgg a jël sa doom mu jàngi soudeur nekk soudeur métallique foofu la ñuy wàccee kàddu yi bu fekkee am naa ñu ma fàttee ah ngeen xam ni waaw sama yéene daal moo doon généraliser gërëm ñëpp sant ñëpp ku nañu jaar sa tur foofu la ñuy wàcc kàddu yi di delluwaat eh, président eh, Modou Seck di ko gërëm moom it lu luñ ci daj rek daj na ko Serigne Modou Seck di communicateur traditionnel nekk journaliste fii ci Niayes FM ñu fekki woon ko Mali mu dalal ñu takkali ñu fa soxna ñu ñibbisi mu takkaliwaat ñu soxna te incha allah balaa yàgg. dinañu takkali waa soxna incha allah kon président mu Seck jërëjëf. maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di rafetlu événement bi naa ne kenn xamatul laay ñoo ci turu maam parce que dama nekk ci acteur de développement. de mu am trois ans chaque année dinaa indil baykat yi ci engrais mais nag du lu ñuy bëgg di ko génnee sax ci kaw suñu liggéey la moom ci la nekk.

ku nekk ci domaine bi nga xam ne fa la amee xel te lii ku xool contexte bi ñu toll tey ji xam ne am na importance lii mooy xeex contre le chômage chômeur mooy ku am métier ba pare te amul liggéey mais boo amul benn métier amoo benn compétence toog nga ne chômeur la da ngay nax sa bopp donc man dama leen ci wax jërëjëf commencé ci kaw ba ci suuf ku lim juum mais nag yéen ñi nga xam ne yéen nekk au niveau départemental ngeen ngànk mbir mi en tant qu'artisan di dem diggante population yi ak les structures yi nekk ci kaw moo xam la chambre de commerce ak ñeneen ni yéen am ngeen jaajëf bu baax a baax parce que bu doon jógee ci kaw it te mu taxi yéen du agsi si suuf may wax ne nag ah heure bi jot na heure bi jot na pour que yéen ngeen xam ne dañuy dem ci kanam dem ci kanam ñu ngi wax naan transformation transformation existé na te ba tey yéen da ngeen di nekk ci biir bu ñu mënuñu transformer dara te jaaruñu ci matériel yi nga xam ne mooy matériel de transformation yi ñuy ñaan nag ñu gën a jëm ca kanam yéen xale yi mag ñi dañ leen jox base base bi moo nekk nii ñu won leen ci quelque outils mais yéen da ngeen war a góorgóorlu ba base bi ngeen jëmee ko ca kanam ñu ngi dem ci ay modernisation modernisation de l'horticulture modernisation boobu yit yéen xale yi yéen a fa jëm yéen a ko fa mën a yóbbu bu leen yem ci lii ñu leen jox rek jéem leen ko yóbbu ba ci kanam kanam bu ma bu ma bañee guddal nag dama leen di wax ne jaa ngeen jëf yéen ñëpp ñi nga xam ne am ngeen patience ñëw toog fi teew fi liggéey pour sa gox liggéey pour sa réew ku nekk la war kenn ku nekk la war te jaru la di wax maa def lii wala maa def la amul importance li am njariñ mooy nga def ko te yàlla tax te mu nekk jariñu askan wi wasalaamaaleykum. kenn la ci askan wi kenn la ci njaboot gi muy président Lo Abdou Aziz Lo ku mu yaakaar Tiwaawan ku mu doyloo Tiwaawan ku mu jébal ay mbiram Tiwaawan jóge dëkku Seydi El Hadji Malick ba président Lo encore une fois tout le monde est vous avez la parole

yàlla yàlla na jàmm suñu déplacé woo ñëw ba Mboro leeraluñ ko du ñu xam liggéey bi ñuy liggéey lan la. lii 2014 lañ ko taxawal mu nekk le collectif du département de Tivaouane mu nekk collectif boo xam ne ay artisans ñoo ko séq monsieur le maire Demba Diop Sy booba nekkagul maire Tivaouane bëggagul sax nekk maire Tivaouane moo ñu njëkk a invité Dakar ñu xaalis bu bari ni ñu dem ngeen defari ay këyit ngeen booloo nekk benn groupe su ko defee bu ëllëgee bu ñu bëggee jàppale jàppale bi yomb loolu moo indi le collectif du département de Tivaouane Ablaye Fall Mboro lañ koy wax ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci mouvement MTS du senegal mooy mouvement bi nga xam ne ay tailleur ñoo dajaloo ci réew mi yépp yëpp ci quatorze régions yi ak quarante cinq départements yi ñu formé benn mouvement moom mu bokk ji association boobu yàlla dogal aussi ñu formé mouvement région euh, ñu formé MTS régional Ablaye Fall Mboro moo ko jiite ñu ànd ak sunu président régional muy Mamadou Seck ànd ak sama vice président monsieur Thierno Sène keroog bi ñuy def assemblée général pour ñu taxawul la collectif des artisans du département de Tivaouane menuisier métallique tailleur mécanicien ñëpp dañoo ñëw ñu ni ñan ñoo bëgg a nekk candidat ma yëkkati loxo mu yëkkati loxo ñu ni noonu nañ dem élection mu ni non man du dem élection ak Abdou fu mu nekk maa fa nekk man fu ma nekk moo fa nekk kon président jiitul ma topp sa ginnaaw boobaak dara dara ñaaw kii Maguette Guissé Kébé mooy relation extérieure bokk ci ñi nga xam wër ci réew mi di defal xale yi ay formation ci wàllu ñaw ñun ay tailleur waaye ay artisan lañ Maguette Guissé Kébé moo otoom suñuy dem Ziguinchor ñun sax duñu xalaat wut oto ndax moom yàlla xam na ko xalaat duñu sax pour wut oto ndax moom parce que lii nii biig laa ko ko wax ni ko suba dañuy xëy dem Mboro <laughs> kon pour wax leen leen ñun ànd bi ñu ànd ànd bu sérieux kii di Mor Talla mu nekk tayee bokk ci collectivité sanitaire du département a Tivaouane yor lépp lu bokk ci organisation Mamadou Seck wax naa ko moo jiite tous les de la région de Thiès mu nekk jàmbaar loolu nag démb sax bi ñu déggantee dama ne ko woon toogal ñu teewal la à ma grande surprise yoon wi la woo ni ma ñu de ñu ngi dugg Mboro ma ne ko kon ñu nag yàlla dogal na ñu yëngatu ci développement Ablaye dama bëgg ñu teewlu parce que kàddu yi may wax dafa am solo te ñaari réunion aussi mënul am ñun dañoo bëgg suñuy wax nit ñi dañu déglu parce que dañuy bëgg wax ji ñuy wax mu nekk njariñ suñ dee wax ñeneen di wax rek njom te mën na am kon ñoo ngi jéegulu ci loolu tey jii collectif bii Adama ñu ngi lay sant parce que dégg nañu taxawaay bi nga def ak disponibilité ba nga defal gars yi bañ mën a def formation bi ñun nag ñëwuñu fii pour di wut tur ñëwuñu fii pour ñu xam ñu ñëwuñu fii pour ñu gërëm wala ñu sant ñun suñu devoir rek la ñuy def yàlla dafa dogal ñu nekk ay ndaw biir Tiwaawan ba courant di coupé la ñu di xeex loolu moo ma boole ak waa Thiès te mosuñu koo def pour suñu bopp. te jamonoy sëñ Mansour. te jamonoy sëñ Mansour. mu woo Ablaye Wade ni ko sama dëkk bi de ñu ngi marche bëgg naa coupure courant bu mu amati ci département bi ci lañu andi fii benn poste defe naa ci zone bi lañ ko monté woon loolu moom ma xamale ak ñu moom du sec c'était en 2009 ñu continuer combat boobu ba ñu nekk tey conseiller municipal di ànd ak Diop si lépp lu bokk ci artisanat ak informel ñu continuer di xeex ci le développement de l'artisanal ba nekk ñu ba tey ñu nekk élu chambre de métier ñu nag ñoom sekki ñi ak Adja Ndeye maa lay nuyu di la jox sa waajuwaay ñun ñoo fa nekk di nuyu monsieur le maire sama mbokku conseillers yi fi nekk yëpp maa leen di nuyu sunu doyen mi doon wax di magu bokk ci magu waa Pastef fi mu joxe fi wax bu am solo bu gàtt parce que li mu doon wax rek laay dëggal mission boo ko yoree di ci liggéey sama turandoo ala amin danaan wax naan su la nit ñu fayul yàlla fay la ñun fayu yàlla lañ bëgg kon yàlla nañ yàlla fayal ñëpp ñoo xam ñu ngi sonn Sidi Badji ñu ngi nuyu Sidi doon nañu liggéey ci lu bare bari mais déggatuma ko fenn en fi ma bëgg ñëw collectif bi moo fi andi formation bi ngeen am tëdduñu di nelaw da doon jël sunu xaalis di paas di woote téléphone di collaborante ak ñi ñu war a collaboranteel di dem ci président Seye di jooy di wax sunu doléance pour département Tivaouane tey jii dem nañ ba àgg foo xam ni lépp luy dugal ci chambre de métier ci ndigalu président Seye waa département bi nañ ci am seen wàll loolu moo waral tey waa 3FPT lancé seen marché lycée technique bu seen bi gagné ko ñu ñëw jox ñu quatre-vingt-quatre jeunes vingt-huit Mboro vingt-huit Tivaouane vingt-huit Pambal loolu nag du jaaxal te autorités yi lii ñu def ñoom lañ ko defal parce que ndaw ñi doon tey war a génn pour topp gaal yi di dem tey am nañu opportunité pour toog pour exploiter seen xam-xam te duñ ci yem bépp dëkk bu ñu dem dinañ ñëw rencontrer la maire pour lii mën a am suivi. barki démb on a formé cinquante deux femmes au de Tivaouane juróom fukki jigéen ak ñaar ci saabu ak eau sawel ñu def leen ñaari groupe kenn ku nekk bëgg nañu aussi sa maire dëkk jàppale la matériel yi yi nga xam ne andi loolu nañ leen ko ñi ngi mi ngi ñu garder au nom du collectif dañu fas yéene suñu amee budget walla financement ñu accompagner li ñu kon na ci liggéey di def seen bopp tey jii may wax fii ci Mboro suba war nañ fi am information ñu bokk ci CCA CNCA ak kuréel la goo xamante ni président jaxa bi moo ko jiite da cee dajale président association yépp man maa ko teewal ci département bi kon sunu taxawaay ak ñi ma àndal ñëpp parce que oto bu gaaree benn nit mooy dawal mais ça ne veut pas dire que ni ñi ma àndal ñoom ñoo ma ëpp xam-xam ñoo ma ëpp dayoo amul dara lu ma leen ëppale man du ma ci dara lantinoor laa ci rek il faut mu ñuy dugg ci bunt suñu dugg ci bunt il faut ñu laaj buntu kër gi fu mu nekk loolu kese moo tax ñuy wax Abdoulaye président mais dama leen di wax ni fii kenn ku nekk yàlla dogal na tey man nga nekk président te ku nekk président nga parce que rôle bii may doxal moom la Thierno seen di doxal moom la moom Mamadou Seck di doxal moom la Ablaye Fall Mboro di doxal fi may jeexale nag dama bëgg a taxaw tuuti ci Ablaye Fall Mboro parce que Ablaye man maa ko coopté au nom du collectif des artisans du département de Tivaouane ni ko lépp lu bokk ci wàllu ñaay bi yow yaa koy coordonné laajuma ci kenn xalaat parce que li tax laajuma ko ci kenn ñi ma àndal dañ maa jox lépp parce que président Thierno daf naan ma yow foo nekk jarul sax nga may rendre compte jarul sax ma fay ñëw ñoom màggat noonu ñoom taala noonu kon loolu suñu ma ko joxee dafay jaar su ma ñëwee ci mbooloo mi ma leeral ko président Ablaye ñu ngi lay sant di la gërëm jour bi moo ko woowee ni ko est-ce que mbooro di nga am mën a am vingt huit menuisiers métalliques dafa ne ma soo bëggee lu ko ëpp sax mën naa ko am tey am na trente trois formé nañ fi trente trois yooyu 28 rek lañu yoon bi mayoon pour ñu am diplôme mais dañoo négocier ko waa ji waxtaan ak moom ba ne ko 33 yëpp nañu fexe ba xale yi nga jox leen diplôme alhamdulilahi rabil a promoteur bi nungul ñu loolu 33 yëpp ñu defal leen diplôme loolu nag sant leen ko Ablaye Fall Boro léegi nag damay wax ak Adama lii nii su ngeen bëggee muy yaatu collectif bi da ngeen ciy bokk il faut

yoo xam ne war na ñëw ci département bi wax naa la la am na vingt cinq femmes yu ñu war a former bu subaa commencé ko Mboro fii suba am nañu vingt cinq jeunes yu ñu war a former ci emballage maa ngi ciy wax ak Ablaye am nañu ay tailleurs yu ñu war a former plus de cent pour Tivaouane commune la de ñi am ay récépissé ak NINEA kon ñu ko amagul fii nañu dem wuti récépissé ak NINEA nañu dem wuti registre commerce léegi nag yow mi nga xam ne aadama yow tey yaa war a toog nga coordonner tous les menuisiers métalliques yaa ab Ablaye Fall wala tous les centres du département di ci biir Mboro wala ci ñaay bi ngeen dajale menuisiers dajale mécaniciens yi du tey kenn ku nekk mën nga dem ak sa bopp dina am yeneen yoon yoo xam dinañ fi ñëw suñu ñëwee war nañu dajawaat woowaat artisans yi ci département bi yëpp boole suñu kàddu li manqué ci bureau bi ñu mottali ko li ci baax ñu dëggal ko li ci baaxul ñu changé ko ñu continuer liggéey bëgg nañu nag président Ablaye remise de diplôme bii ñu def fii Mbour dañu bëgg a dajale ñu doon def lii nga xam ne tey moom lañ jeexal mu formation ñu dajale ñëpp au niveau de Tivaouane parce que monsieur le maire Demba Diop moom moo nekk le président de tous les maires du département de Tivaouane maire yëpp ñoo dajaloo di ko yaay suñu kilifa yaay suñu mag kon lépp lu ñuy jox ci kàddu maire bi ci maire yi nga xam ne ci commune yi la jox nañ la suñu kàddu nga jotale ñu ko ci président de la république du ñu jeexal nag te saluñu monsieur le président parce que wax dëgg yàlla euh, damay wax ni lii nga xamante ni moom andi na ko ci arsenal benn président mosu ko andi quelle que soit les situations aussi loolu dañ koy wax il a beaucoup fait pour la régionale kon boog nañ koy sant di ko gërëm di wax ni daal foofu la ñu yemale kàddu yi bëgg nañu dajale lépp loo xamante ni arsenal la ci département bi ci formation bi ñu doon def dinañ jàpp jour su laajee transport dinañ ko yónnee Ablaye ngeen jël oto ñu ñëw maire Tivaouane devant le préfet devant les autorités ñu wan leen ni leen ñun ci lii la ñu nekk ci biir département bi pour développer pour jeunesse bi ëllëg ñu am métier su ëllëgee ñu am fu ñu teg seen tànk ba yu bëree bëri ñoom xale yi seen xel dootu ñu nekk en tout cas lii ñu ngi sant Ablaye Fall encore une fois di sant monsieur le maire bi nga xam ni moo leen yombalal fii ñu defee tey programme bi ak képp koo xamante ni homme politique nga wala nga yor mouvement du ma mën a lim kenn par kenn mais ñi fi teew ñëpp rafetlu nañu seen teewaay rafet lii mooy wane nii Sénégal aussi lépp benn la ñoo bokk nay ñoo bokk bàyyi mais choix yi mënul nekk benn kon boog nañu rafetal ànd bi joxante loxo di ñaan yàlla lii di jub si yàlla def ci ndox mu sedd ba kenn ku nekk suñ ca àggee yàlla jox ndam jox ko bu ñu xëyee dem liggéey en tout cas ñu ngi sant journaliste yi ñi fi teew ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm sunu jigéen ñi fi nekk ñi xëy na suñu yaay wala sunu ay doom wala sunu ay jarbaat sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp bénéficiaires yi ñu ngi leen di encouragé encore ñu ngi leen di encouragé di leen ñaanal aussi diplôme yi yàlla nekk mérite. parce que Ablaye wax na ko tey jii seen diplôme yi ku ci def demande tey ci entreprise nekk fii yàlla mën na ci def sutura kon yàlla ngeen ko muurloo yéen ak seen njaboot di leen ñeen invité nag Tiwaawan parce que ñun remise symbolique leen def su ko defee ñun ñëpp ñu daje ko devant le comme ça ñu won ko ni liggéey bi moom la département bi doon liggéey ci turu la collectivité territoriale du département de Tivaouane ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant encore une fois ñi ma àndal surtout président Thierno moom fële dañoo jaaxal Tivaouane rek ma ne ko il faut ñu saisir la ñu ànd dem Mboro parce que affaire bi da cee liggéey lu am solo màggat ñu leen di sant di leen gërëm taala salaamaaleykum wa rahmatullah Mamadou ñu ngi leen sant kon monsieur Diédhiou vous avez la parole macha allah mais monsieur Diédhiou ku am taxawaay ku am gis-gis mais ku bëgg Mboro ku bëgg askanu Mboro monsieur Diédhiou ah vous avez la parole. tàccu leen ko waay. monsieur le communicateur traditionnel xam naa damay soppi tur bi doonatoo. un communicateur traditionnel mais un communicateur moderne dama bëgg a yëkkati ñaari baat rek boo ma ko mayee avant may joxe euh, diplôme bi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko sakku ci yeen di wax ni rek fi dama fi téwé ci ñaari casquette bi ci dañ invité en tant que représentant de Passef Mboro en tant que le coordonnateur mais bima ñëwé itamit fekk fi Lamine Diakhaté adjoint au maire il m'a fait l'honneur de mon na ñëw mais je pense que c'est plus un acte républicain qu'un honneur parce qu'en l'absence du maire le conseiller devient d'office le maire Lors le comprendre motax mu woo ma ñew tok fi amna ñu fi yëkëti nak ay doléances parce que tay du wax en tant que coordonnateur de PASTEF Mboro mais dama fi téwal maire kon kàddu maire la yëkëti amna ñu fi yëkëti ay doléances may wax ni rek maire ou la mairie de Mboro bu dee collaboration bu dee partenariat bu dee accompagnement bu dee suivi mënut bañ loolu parce que li ngeen def ni en réalité, vous l'avez fait pour la mairie de Mboro, vous l'avez fait pour le maire de Mboro. Parce que nous nañ ni jeunesse bi mais ce que nous voulons. Nous pouvons am ay diplôme académique moi je suis professeur suñu état da ko yéex après la réorienté en andi enseignement technique et professionnel Lorsque je may jeune bi am qualification gis nga qualification boo ko parce que qualification moy traduire ay compétences bo amé lolu mën nga démal sa bop lolu lañ tuddé autonomisation wala entrepreneuriat mais lolu employabilité la parce que nit ki bu taxawé né dama bëgg liggéey té amut lenn luy findel ni mom amna ay qualification mais ben entreprise du ko jël donc li Abdou Fall ñu ngi leen di encourager di leen féliciter parce que li état ngeen ko defal li mairie Mboro ngeen ko defal parce que jeunes yi bu ngeen len joxee sen attestation mais ils deviennent de facto ay nit ñoo xamante ne mën nañ laaj liggéey mën nañ sax former seeni entreprise bop parce que tay fofu lañu tollu ci entrepreneuriat waro tok rek ñu lay defal yow war nga mëna a créer sa mbiru bop jël ay nit di len fay surtout ci zone bi ñu nekk dañu nekk ci zone agricole ñu tuddee ko euh, zone des Niayes mais nest ci zone industrielle lii ay artisanat c'est des produits de l'artisanat mais ICS c'est fi une formation pour ça pour que yi avec a ICS ak euh, GCO donc là, nous ne dit dinaa ko a plein de doléance maire de ci et je sais que il est preneur il vous tend la main pour qu'on travaille ensemble